mbokki téléspectateur Siweul TV ñoo ngi leen di nuyu foo leen mën a nekk di ñu bàyyi xel ci biir réew bi ak ci bitim réew di am mbégte bu yaatu si ànd bi ngeen di ànd ak ñun saa su ne ci suñu ay programme tey nag comme niñ ko baaxoo defee ci alxamis yi ñu ñëwaat ci seen émission bi di Café Siweul euh, ngeen di ko am lundi bu jot ak sudi ci ngoon si ma ciy ànd nag tey ak Birane Diop ak Cheikh Sylla Talib suñu consultant ñoom laay àndal si jotaay bi ñu war a waxtaanee actualité ak société xam naa du ma sori damay bàyyi Birane rek mu nuyoo Birane ñu ngi lay ziar ñu ngi lay delloo ziar soxna Khady di am mbégte ni nga ko waxee sànq ni dellusiwaat ci suñu émission Café Festival ñu koy am tous les lundis et jeudi ci ngoon gi tey jii nag ñu fas yéene dikkat ak ñi nga xam ne ñooy suñu suñuy téléspectateur ci li nga xam ne moo di actualité ak société di nuyu bu baax a baax Cheikh Sylla mi ñu bokkal plateau bi tey nag daa mel ne dañoo am ñoo xam ne danañ fi teew te teewuñu xëy na ci ay xat-xat lañ nekk waaye lépp nag moo jëm ci liggéey bi léegi-léegi dinañ dikk ak ñoom kon li gën a fës ci waxtaanam tey ji waaw sama Khady noo ngi lay delloo ziar bu baax te di la nuyuwaat ah, di nuyu ah, sëñ Birane ah, ni ki noonu it ñi nga xam ne ñoo ñu topp li ñu bàyyi xel ci biir réew mi bitim réew ñi nga xam ne ñoom ñoom la ñuy sagoo di siyaare baax sëriñ Mountakha mi nga xam ne moo fi toog jataay bi Cheikhul Khadim waaye di nuyu sama sëriñ sëriñ Khalil mu Cheikh Ahmadou Basir di ko siyaare moom it di leen ñaanal fan gudd loolu ànd ak wér barke cheikh xadim ngeen ko waxe rek fasiyene ñew ak euh, mbokk yi ci li nga xamé ne moy aju ci walum euh, société wala walum politique wala dal lu mën doon rek ci biir jataa bi inshallah seen capacité siiwal <laughs> mooy noonu comme ni ko biraan waxee sànq baaxoo ngeen di gis ci plateau bi ku ci melni soxna lo wala ki ne gay waye ngant mo len xawa dab motax ma sekk ko ak sama ñaari goor yi yaan yi rek ñu fasiyene waxtaan ak yeen ñu len di wax rek ngeen di ñu topp ci ngeen doli di ñu ci facebook bi instagram ak twitter ci siwal.net euh, l'officiel tay nak ñuy waxtane actualité actualité bi ñu war a waxtaanee nag mooy euh, économique bi nga xam njitam rew mi doon nako amal fofé ci sin salum muy région bu fatik kaulak ak euh, kafrin biran ban jàngat nga am ci tournée bi nga xam njitam rew mi doon nako amal waaw soxna Khady ni nga ko waxee sànq ni président Macky Sall di njiitum réew mi na amal benn tournée économique wala sax am ñu naan tournée agricole li ko waral nag mooy ni tournée bi liko ko tax a jóg mooy que ni buñ demee ba nawet bi toll fi mu toll day jël décision daal dem xooli baykat yi nga xam ñu nekkon ci all bi e, fan la seenu liggéey toll lool nak mu nekk lo xamne ne lu initiative bu rafet la ndaxte mom mi nga xamne mo rew mi buñ démé ba nawet bi toll fi mo am xalaat dem séti ñi nga xam ñoo nekkon ci all bi seeni toll fan la toll jamono ji lool luñu mëna rafet la niñ ko sank ren ji nak tourné bi mi ngi teeloon e, sin ak Saloum moy région bu fatik Kaolack ak e, kafrin ñu fatali nak né tourné bu bu ni mel doonu lo xamne lu fi ñëk la moom ay at at yi nga xamne mo jall ci 2019 2018 amal na ko comme ñi nga xam ñoo ko jiitu président yi ko jiitu loolu nañ ko amal tamit waaye ni nga ko waxee sànq nii moom euh, dafa demoon ci àll bi ngir seet ñi nga xam ñoo di baykat yi waaye nag euh, liñ ci gën a jaaxal ci tournée bi rek euh, jàngat bi ñu ci am mooy que ni tool yi ñu gis yi nga xam ne président Macky Sall visité na ko boo ko xoolee ay tool yu rafet lay doon day naat lool loolu nag laaj bi mooy que ni dafa mel ne tool yi nga xam ne moom moom la dem xoole ko yooyu ñu tànn la mm-hmm. te baykat yi bari nañ bari goo xamante ne nii bu leen doon fekk na mu leen war a fekkee danañ dajaloo ñëw ci moom gaaral ko seen i jafe-jafe gaaral ko seen i bëgg-bëgg bu ko defee mu fas ci yéene taxaw waaye li gis mooy ay tool yoo xam ne xëy na seen i borom li ñuy wax ay la ñu doon ay njiit lañ ñoo xam ne ay yu mag la ñu doon kon am nañ bépp matériel boo xam ne moom lañu war a am bay tax suñ bayee mbay tool yooyu ba demee seeti leen la nga mën a fekk rek mooy tool yoo xam ne dina rafet lool waaye nag laaj bi ñuy laaj mooy yeneen baykat yi nga xam ne xëy na ñoom nekk nañu ay baykat yu ndaw seen loxo jotul seen ginnaaw lañ war a am ci matériel amuñu ko lañ war a am ci jiwu amuñu ko ko la ñu war a am ci engrais amuñu ko ndax ñooñu tamit doon toon yoon président Macky Sall dem ba jege leen wax ak ñoom ñu xam dëgg-dëgg seen jafe-jafe lan la a gis mooy que ni moom ñi jot a seeti mooy ñi nga xam ne ay gros producteur lañ leen ay gros producteur lañ ñu ko waxee sànq kon daal liñ ci mën a jàngat mooy que ni béykat yi dëgg-dëgg daa mel ne eggul ci ñoom. eggul ci ñoom Seydou la Taalib ban jàngat nga ci def. waaw soxna waaw jàngat bi ma am ci eh, visite wala tournée boobu nga xam ne njiitum réew mi doon na koo amal muy président Macky Sall euh, d'abord dañ koy rafetlu wax dëgg yàlla lu ñuy lu rafetlu la ndax ku jiite am réew jiite aw nit war ngaa di jug di sol saw dàll di dugg ci ñoom di xam li ñuy dund di xam seeni jafe-jafe ak seeni bëgg-bëgg loolu jaaru la mm-hmm. xanaa kay eh, defin wi ak nees koy defee mu mel ne ni e, buñ dee xool e, warutoon di nekk benn yoon rek ci at mi wala at mu nekk ñaari yoon waaye waroon naa mën a ëpp loolu di gën a di gën a bëri lu mu néew néew néew néew e, ñetti weer yu nekk tournée bi am wala yu mel noonu ndax njiitum réew bu ñu ko falee nekku ne da ngay toog palais mm-hmm. di signé ay décret ak di signé ay contrat wala di génn di dem ak ñëw loolu rek taxu ñuy wax njiitum réew waaye daje bokk ngay génn di wàcc ci askan wi ci terrain bi bi xool li ñuy dund ak jafe-jafe yi nga xam ne ñoo ngi koy yem bañ a yem rek ci say ministre ak say député ak say maire waaye dangaa war di wàcc ci terrain bi di xam bu baax a baax ndax loolu mooy waral euh, xam gi nga koy xam dana war a mën mën a gën a encourager ngi gën a mën a liggéey xam li nga war a liggéey ak fi nga ko war a liggéey mu mel ni tournée bi tournée économique la waaye tournée agricole la maanaam ci wàllum mbay la ëppee ci baykat yi boo xoolee ci lépp wala sax man nga ne ci ñoom dong la daa nekk euh, waaye foofu yi damay ci revenir ci li nga xamee ne eh, sama naataango bi daan wax na ko léegi mooy bëri yi nga xamee ne dem na ja day mel ni lu ñu tànn la. Mm-hmm. nekkul na nag daa tëb tëb rek ne naa seeti baykat yi eh, ñëw ci benn baykat bettu ko donte nag jiitum réew ku toll ni jiitum réew fu muy dem waras na ko mën a bàyyi xew waras ko mën a waajal waaye nees koy waajale nag. waaye nekku na da ngay xool ñi gën a ëpp doole ci baykat yi nga xam ne am nañ ay moyens suñu tool dana naat dana rafet dana meññi eh, nga dem fa déedéet waaye da war a xool ñi nga xamee ne ñii ñoo ëpp soxla ñoo bàyyi ndax ñii nga dem mën naa du ñàkk du ñàkk ñu soxla ndimbal. Mm-hmm. waaye am na ñu leen gën a soxla ndimbal. te it ñoom ña ngay def ay effort ak su néew te ku leen jàppale ñu dem nga wàcc ñooñu nga seeti leen loolu moo mooy li nga xamee ne moo ëpp solo ñun loolu mooy suñu suñu suñu suñu jafe-jafe. Eh, suñ njiit yi bu ñu demee ci ci yi nga xamee ne yu ñu war di génn la mm-hmm. dañ koy tànn li nga xamee ne keneen ku nekk bitim réew mi ngi koy gis day jàpp ne ah Sénégal kat gonga loolu si njiitum réew mi lay doon wala ñi nga xam ne ñoo koy daal waaw njiitum réew mu nekk da nga am protocole boo xamee ne ñooy yor say programme ak sa wàllum communication yooyu waaye lu ci mën di am euh, président Macky sàll bu bëggoon wàcc ci yeneen baykat yi ci des mm-hmm. mën na mën na caa wàcc xam ne nuñ ciy wàcc ak protocole lu mën di doon teewut protocole yooyu moom ak la ñuy fañ sa programme ni ñu ko tëralee yu mel ne yaa leen fay teg hmm. nekk nit ñoo xam ne ñu dëggu la ñu doon ñu gëm seen réew la ñu doon ñoo xamee ne jafe askan wi rek la ñor ba bu ñu lay wàcc ci terrain bi duñ la wàcce foo xamee ne euh, képp ku gis que dans Sénégal ni demel fekk na Sénégal boo xoolee ci biir melu noonu baykat yi ñu ngi dund ay jafe-jafe ci euh, wàllum engrais bi wàllum jiw yi ak wàllum mel noonu bi tamit ak yeneen yeneen yoo xam mu yóbbu na fa ay ndimbal ak yu mel noonu. Mhm. yooyu yëpp am na solo waaye mën naa am fa solo sa doon ëppee mooy fañ ko soxlaa woon ak it ko gën a soxla euh, waa ndax gis nañ ne euh, foofee ca Kaolack. gis nañ ne foofee ca Kaolack dalloo na fa lu ëpp ñaar téeméeri jumtukaay yoo xamante ne bii danañ ko yóbbu ci baykat yi rawatina ñi nga xam ne seen doole demeewul noonu waaye dañ ciy cité ay ay gox yoo xam ne ci la jumtukaay yi war a dem fu ci mel ni Sédhiou Kolda ak Ziguinchor.

waaw Khady loolu nga wax man nañ jàpp ne lu am solo la parce que euh, président Macky Sall bu jëlee ndogal ne day dimbali ay baykat ci wàllu matériel agricole wala leneen lu ni mel lu rafet la waaye Cheikh la dafa wax sànq lu am solo ndax euh, dañu nekk le moment ci jamono jooju noonu. maa ngi lay wax ne bay dafa am jamono boo xam ne baykat bi ci la yittewoo euh, matériel agricole am wala jiw woo xam ne daf koy am ngir bu nawet taxawee mais xoolal nawet bi fi mu toll dem na ba heure bi nga jël ay matériel di ko soog jox baykat ndax foofu la ko yittewoo woon ñañ ko dox dëgg-dëgg ñooy ñu ko yeew yooyu yëpp jar nay laaj fam demoon tamit yaa ngi yeneen bërëb yoo xam ne xëy na fu wuute na ak Siin ak Saalum fam demoon tamit ndax ñam fa fekk dëgg-dëgg ñu doon ay baykat yu ndaw seeni jafe-jafe jëm na ko xam ndaxte boo dëkkee ci àll bi di nga xam ne nawet bi dugg si baykat yi ay jafe-jafe yu métti la ñuy jànkonteel ndaxte li gën a jafe mooy nga am jiwu état bi da ngay gis benn borom kër boo xam ne ay 15 kilos gerte la koy jox te 15 kilos bu ñu la ko joxee sax bi muy nekk soo ko génnee nga tànn ko li ci war a génnee parce que du gerte du ñu koy am ne baaxul da nga koy génne ko fële boo defee triage boobu ba pare liy des ci liy des ci gis benn baykat boo xam ne presque mën naa am 300 kilos gerte wala 200 kilos gerte nga jox ko ci 16 kilos li ci des ci poosam la koy génnee di ko jëndi te su bayee ba nawet bi jeex day am problème pour jaay ko problème bi mooy lan njëgu gerte gi parce que fii Sénégal at yi ñu romb yëpp ñaari at wala ñett ci ginnaaw li ëpp la ñu dégg ci njëgu gerte la ñeent fukk ak ñaar loolu ci njëgu gerte li ñu xaar tey ji mooy que dem ci ba ci baykat yi xamal leen ne seen gerte gi ngeen daan jël di ko jaay 210 gerte gi nga xam ne état bi lañ xam ne baaxul di tax baykat yi suñ ne ba ba jaay seen gerte pare ñuy njëkkante eh, dem jaayi ko ndax seen soxla day taxaw te duñ gis ku ko jënd ñuy dem di ko jaay loo xam ne na njëgg mënoon naa yokk mais wante nag seen i soxla mooy taxaw moo tax ñu koy jaay kilos. waaw ah, parce que nawet bu jub see lu mu gàtt gàtt bu bëggoon jël benn benn nga jënd benn cent kilos gerte da nga ko jënd ay soixante mille ay soixante dix mille loolu am na ki jënd loolu soixante mille dem ba nawet bu wàcc kilo gerte bi dañ koy jëndee deux cent dix loolu boo méngalee day ndaw lool kon li doon yoon mooy que mu ñu dégg ñu ne président Macky Sall nee na bu ñu ba nawet bu wàcc ku am gerte kilo bi dañ ko jëndee cinq cent ñu xam ne lii dimbale baykat yi la wala mu ñu ne bu lii ñuy dund ci ren ci jafe-jafe ci wàllum jiw ëllëg dafay jóg parce que suñu eggee ba nawet nawet bi ñëwaat danañ joxe jiw bu doy joxe matériel agricole bu doy waaye ba tey jii baykat yu ndaw yooyu ma lay wax luñ li ñu yaakaar seen mbay mooy ay fas wala ay machine léegi nag ki nga xam ne yor ay tracteur nekk ci ay toolam kooku su bayee tool day rafet ñu wax ñooñu amuñu ay jafe-jafe mais ñooñu noonu am na ñu leen gën a sonn parce que mang koy wax euh, barki dem man len ñi nga xamne euh, tole nga xam ci dem ci ñaaxar bu fa tool rafet la ay sa jëm bu boobu bob tole rafet la ñom suñu borom dimbal na len dugub dong la bay mais suñu bayé len dañ koy jaay len ñu transformer yenen produit loolu ku am doole moo ko man ñu gis ne am na ay tool yoo xam ne dañuy dund ay jafe-jafe ndax ci nawet bi nii rek am na ci tool yoo xam ne seeni borom ndox mi dafa nangu. parce que ren gis nañ taw bi ni mu bëree am na ci ñoo xam ne ay baykat lañ te seen tool yi ndox moom noonu yàq na ko est président mag Sall egg na fa eggu fa demu fa tool yi mu dem ñun gis nañ ko tool yu rafet lay doon mu dugg ci ak tànkam waaye tamit eh, xam naa danañ ci ñëw sànq ndax demoon ci tool yi jamono ji mooy urgence ci réew mi. Ma, moy lu taxaw lu taxaw dar dar dar, moy set ay tol jamono ji ñu tol question bobu jëm jarna poser wu. jarna poser wu ndax jamono ji yaakaar nit ñi mom soxla nañ leneen lu dut ñuy dem ci tol yi waaye est-ce que jotu tam suñu njiit yi ñu xol ben technicien bo xamanteni bi xam xam-xamam na ci walum suuf ngir mu saytu suuf si ak yan jiw nga xamante ne bii moo fa war a moo fa war a dem ndax sunu baykat yi mu gën a yomb ci ñoom ñuy bay ndax seetlu nañ fii Sénégal dugub rek lañ fiy bay ak gerte ak li nga xamante ne bii moo di mbokk waaye yeneen yi nga xamante ne bii dañ koy soxlawoo yenn saa yi dañ koy dem di jéggaani. waaw soxna Khady eh, ni koy waxee loolu moom lu jaalu la lu yàlla la. Mm-hmm. ndax mbir soo ca bëggee jariñu da koy xam baa nga jox ko ko xam mu mën laa teg ci aw yoon. Mm-hmm. yàlla bëgg ñoo mucc danañu ku ci xamul da ngay laaj xam dana fas alu ahla dikri in kuntum laa ta'lamuun moo wàllum suuf am ñu ko yàlla jagleel dañ koy jàng ba xam ko suuf su nangu ak su nanguut ndax it na eh, baladu tayyibu yuxruju nabaatuhu bi isni rabbihi waaye wala si xabusa laa yuxruju laa yuxruju ilaa naka ilaa nakida maanaam suuf su baax du génn lu meññeef mu teey mu baax suuf su bon nag wala suuf soo xam ne baaxul soo fa demee jifa daanaka la nga da nga biir suuf su du la ko joxaat waaye lam la cay joxaat du mën a faj say soxla kon day aajowoo ñi nga xame ne ñooy ñooy yore wàllum wàllum mbay mi eh, tàmbale ko ci gouvernement bi ak ñi nga xamee ne ñooy ñoo ko ñoo ko ñoo ay jaraafam ñuy fonk wàllum suuf xam suuf si nangu ak suuf si ñu war a mën a bayee loolu dafa jaar dafa am solo lool mm-hmm. ndax nit boo ko joxee aw jiwu te joxoo ko suuf su baax wala amul suuf su baax wala def na effort ba am suufam te te suuf soosu na mu war a na mu ko war a toppatoo euh, mënu ko ne toppatoo bu fa jiwee jiw mën naa bañ a nangu wala ba nangoo it euh, nawet du demee noonu. te moo moo tax daanaka boo xoolee engrais yu bari léegi di tax ñu koy joxe ñaare euh, ngir aw am mbay mu jaar yoon mbay moo xam ne mu naat lay doon mu mu rafet lay doon loolu moo ko waral. Mm. loolu nag bu àndee ak suuf su baax nag day gën a day gën a taaru kon loolu day ajoo ñu jox ko ñoo xam ne ñu ko xam lañ. Euh, xam wàllum su xarañu ko waaye it di di di dimbale baykat yi ci li ñuy jaay ñu di ko jënd ca prix ba bañ koy jënde bañ ko xam ne moo ci yàlla mm-hmm. waaye jënd ko prix boo xam ne buñ ca paree dañ cay loruwaat wala lañ la koy jaay te jaayu ñàkk a ñàkk ñaan ku sañ ku sañ te bañ sañ a nangu mm-hmm. lay doon euh, ni ko noonu it léeg mbay mi gerte gi ñuy bay bay euh, tool li ñu bay bëri dañu bay gerte dañ bay mboq dañ bay dugub ah. dañu bay ñebbe ak yu mel noonu yooyu yëmul ci rek gerte ne day mën a def euh, ne ko ne gerte day mën a def rek di ko jigéen ñi waxee noflaay uh-huh. hmm? gerte mën nga ci am yeneen diw pepp nii lu nekk mën noo ko mën nga cee sànq def sànqal mën nga cee def nangam ak nangam ñu koy jaay léegi eh, boo xoolee am na entreprise yoo xam ne wala am na société yu ndaw yu juddu yoo xam ne uh-huh. ci wàllu dugub mi lay jël def ko gar ko Euh, def ko sankal su dijji wala sankal su sew wala yu mel noonu di ko jaay wala araw ñu koy consommer conseil local lolou day am solo cere lu ko man mbokk nit ki nonu man na leneen leneen lu bari ñebbe ji ñi gis man na leneen lu bari yoy ni dimbele leen wutal leen fo xamee ne suñ paree dañ ko mën a liggéey yar mu desaat ci desaat ci desaat ci réew bi dañu war a appuyer euh, suñu baykat yi wala ñi nga xamee ne ñi ngi yëngu ci yoon lu melni euh, AIC ASC ña ASC ba mu nekk ñaaxaar mhm. yi nga xam ne ñu ngi koy def bu ñu ba pare ci yeneen produit yo xam dañ koy jël di ko di ko di ko transformer di ci defar leneen ak leneen ak leneen loo xam day delluwaat ci réew mi ñu ci kii tey ñu fexe ba baykat yi ñuy teel a jot jiwu yi di teel a jot engrais yi ndax it euh, suñu ci ndorteel nawet bi rek seetoon nañ kenn koo xam ne euh, ko ci ci jiital baykat yi la fii ci région de Diourbel muy Serigne Bara Bousso ñoo ngi ko nuyuwaale di ko siyaare mhm. lam ñu xamal mooy euh, ba nawet bi dugg na ba taw ay taw yi taw te jotaguñ seenu jiwu engrais bi ni ngi noonu mhm. tamit ñi ci jot néew ñu borom doole lay doon ña nga xamee ne seen doole jotawut wala yu mel noonu la ñuy jote du tax du ko tax a bëri tey ñu bàyyi xel nag engrais bi ak jiw bi nekku ne dañ leen koy may de mhm. waaye luñ leen di jaay la mhm. dañ leen koy jaay ba pare te séddale bi day am parparloo day am parparloo bi ci topp da ngay jënd jiw jënd engrais léeg-léeg boo amul moyen dem jëndi fas jënd mbaam jënd léeg nga jàpp surga wala mais bay dafa metti mhm. bay dafa metti mel ni réew nag mënut a ñàkk bay tey Chine tey lu tax mu avancé wala Brésil ci wàllum bay la Brésil tey bay café moo waral bokk na ci seen économie lu tax mu gën a avancé wàllum bay café la ak yu mel noonu yamul tudd ci réew adduna fi bëree fëri boo fa demee da fa fekk ñu fay jëfandikoo ñu fay jëfandikoo café donte du ñoom rek ñoo ko bay ah. mais exemple lañ ci siin tey amuñ pétrole mais ci wàllum mbay ak wàllum euh, defar ay jumtukaay ak ay usine ak yu mel noonu moo tax ñu avancé uh-huh. kon li nekk suñu réew mi bu ñu ko jëlee jëm koo euh, jëm koo xool nuñ koy organiser fexe jàppale doomi réew mi soobee yàlla dinañ mën a dem ba dootuñ soxlaalate kenn wala lañ soxlaalate keneen dootu nekk lu hmm. luy demee noonu mu wax lu am solo Birane tudd na lu mel ni kafe kafe da ngay xool ci suñu réew mi liñ koy jëfandikoo dafa bari lool te gisuñ ci tool yi sax ñu koy bay lu lu mel ni kafe par hmm. day dellusiwaat ci li nga waxoon euh, ñu dem seeti ñi nga xam ne ñooy technicien te seen te seen xam-xam màcc ci wàllum suuf am na Sénégal loolu kenn wérante ko Sénégal moom boroom xam-xam donc am na fi léegi nag ndax volonté bi am na ngir woo ñu ñu ñëw sur le terrain dimbale ñi nga xam ñoo nekk baykat yi ngir ñu xam loolu ndaxte euh, café googu nga wax xëy na dafa am ci suuf su war a nekk kooku ki nga xam ne nit la nii rek doon baykat du ko xam. kon force nga am technicien boo xam ne moom la xam-xam ci loolu la màcc mu xam lii nii lii nga fi def ngir mu baax pour mu pour pour suuf soosu noonu mën a nangu loolu. léegi mi ngi wax sànq ay mbay mi suñ ko bàyyee pare euh, ndax mu ñëwoon di ñu jàppale ci transformation bi ak yooyu noonu euh, Sénégal li miin bu ñuy jàng dañu ñuy wax ne ñaar ay culture dafa am lu ñuy wax culture vivrière maanaam mbay moo xam ne da nga koy bay di ko dundee waaye tamit dafa am culture commerciale loo xam ne da nga koy bay di ko jaayee di ko jaayee ji léegi culture vivrière boobu moom man dafa bëreetul ci réew mi maanaam bay dunde boobu noonu suñ xoolee bëreetu ci réew mi ndaxte li ëpp ci li daan bay diko ko Sénégal man nañ wax né dugub la dugub amna na xam bay kat yo xam dañ daan bay ci lañuy lek ci ci dugub jooju noonu ba nawet bi ñëwaat. lépp di ci lek ba nawet bi ñëwaat. lolu ñun ay preuve lañ ci am ndaxte ñun ci Allah bu lañ dekk léegi nak lolu mën nañu wax né amatu xam nga lu amatu bay kat yi amna ci ño xam liñu bay avant nawet bi di jeex lek nañ ko parce que yow euh, bo démé ci Allah bi yow da ngay bay ji nga sa dugub saxna bañ bañ tollu ci digg nawet amatoo xaalis dangay dem ci nit moo lay jox xaalis xaalis boobu mu lay jox suñ demee ba nawet bi jeex léegi dañ dañ koy calculer par kilo nu mu toll ci dugub xaalis boobu nu mu toll da nga koy jël joxaat ko nit da koy jël joxaat ko nit ki ci dugub kon mooy wane ki doon bay avant mbay mi jeex li mu bayoon moom lekk na ko. léegi xool la kooku noonu ban jafe-jafe lay jànkonteel léegi nag kooku noonu est-ce que du kon moom la ñu waroon a dajalee toog moom wax ak xam dëgg dëgg dëgg ay problème am lan la defuñu ñu dem xool ñi nga xamante ne xëy na ñoom ñoo man dama jàpp ne ci kanam tuuti Sénégal ko amul doole doo mën a bayati man loolu laa jàpp ci kanam tuuti ku amul doole doo mën a bayati ndax bay xaalis moo koy def boo ci bëggee am dara boog la ñu wax. ak suuf tamit gis nañ dañuy jël suuf di ko waaw léegi Sénégal gis nga fi mu ne nii suuf moo fay coow daanaka mënoo dem ci benn commune te amul problème mu suuf. ñun yaa ngi dégg maire yi yaa ngi wax sànq naan ñi nga xam ne ñoom ñooy eh, ñoo ko fa toogal buy ñëw est-ce que du ñoo koy tànnal Sénégal moom gis nga ki dem nga dégg fii benn femme boo xam ne député la génn na ci benn sortie ci benn télévision di wax problème mu ndox rek ñibbi ñu ne problème maire ba moo yónnee indi ñu agressé ko kon ñoom liñ bëgguñu maanaam kuy wax ci seen mbir dara dara dara dara parce que am nit moom bu fekkee ne day def lu jubul rek du bëgg koy tudd saa sa non lay demee waye liñ mëna waxat dal moy daal deug deug jafé jafé jafe-jafe baykat yi pour nga xam ko li doon yoon moy nga wax ak deug deug baykat yi nga xam ñoo nek ay baykat ndaw tay dundu ay jafe-jafe mais nga dem ci les gros producteurs yi nga xam ñi nga seen tracteur suñ baye paré dañ koy jaay parce que amna ci seen seen ci seen euh, produit yooyu ñu dañ koy transformer amna ci lo xam dañ koy dañ koy dañ koy exporter mu génn réew mi ñu ko sax ci biir réew mi lolu ko amul doole man na lolu motax baykat yu bari yu ndaw yi daw nañ dem Dakar ñi di dem di inigi ah, légui ñoñu non li ñi def lu bax la parce que lolu di lié ay produit ko exporter muy gën jënd ngay jaay baax na mais est-ce que doontoon yoon loolu noonu ñu fex ko multiplier ñu bari di def noonu waaye bu ko ñenn rek di def ci ñi ëpp am ñi ëpp ci baykat yi mënuñu lool mooy wane que di dëgg dëgg dëgg pour ñu saafara jafe-jafe baykat yi daa mel ne volonté boobu noonu amagul man ci li ma jàpp bokk mais baykat yi dëgg-dëgg boo bëggee xam ñan la faaw nga dem ñi nga xam ñoom la seen ay ñoom la seen i koppar gën a néew nga wax ak ñoom xam seen i jafe waaye nag dem ci ñi nga xam ne xëy na am nañ doole wax ak ñoom loolu saafarul jafe-jafe. da ngay xool ku xam ne dañ leen a tool yi fi nii. loolu la ñu waxandi dañ leen a aal tool yi te ñooñu si man nañu wax ne seen seenu jàmbaar ak seen dëgër bopp bu ñu nooyoon ren duñ bay seen suuf soos noonu te nag coow li jeexagul ndax dañ leen ko aal nawet bi day jeex su jeexee beneen nawet day ñëwaat ndax nawet bii di ñëwaat day nekk loo xam ne dañ leen koy aalaat wala dañuy jot seen suuf ndax tamit keneen ko aaloon danañ leen ko nangoo aalaat bu nawet bi jeexee <laughs> maam maam suuf si suuf suuf moom ci Sénégal daanaka mooy mooy mooy mooy jamaa mooy woor mm-hmm. léegi ñu ngi jaay bay jaay ay mairie mm-hmm. waaw lu nekk ñu ngi koy gis ah, li ma ciy dolliwaat rek ci ci tournée bi day mel ni tournée bi mm-hmm. ah, li ñuy wax ne eh, nangam lu mu ci përëm eh, ku ku kuy def dara lu baax ba jàgg ñu ne diw ko lu mu tëgg rax ci përëm ah, gis nañ ne dañ koo xaw a politiser boo gisee bi mu demee Kaolack ak bi mel noonu niñ manifester niñ daje mobiliser nit ñi dajale leen Euh, euh, ñi nga xam ñooy responsable yi APR yi nekk foofu dajale aw nit génn ci jamono ji boo xam ne ni ngi wax ay mesures barrières yu ñu war a sàmmonte takk ay masque di def ay distance mm-hmm. nga def loo xam ne daanaka yaa ngi ci campagne électorale boo dee xool image yi ni ngi gisee ni mu feesee ni ñu koy gàttandoo loolu wàllum politique la rek ndax mënoon mën naa def sax tournée bi te du ñaar ñett ak ñeent duñu yëg ba ñuy dajale aw nit yoo xam ne day toll ni ci fa xam ne waxuma la dara waaye ministre bi nga xam ne moo yor wàll de la ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr gis nga ko moom bërki démb bu ndaje mi doon def mm. mel ni foo xam ne sabar gu tas la kon daal mu mel ni yow su ma dégloo say wax njiitu réew mi day campagne ah wala day tàgguwaale tàggatoo waale ndax damay ragal ne nag deux mille ah, vingt quatre bii jëm troisième mandat moom rek wut xanaa nag ñi mu wut ak lu mu am am fit ne day posé waat candidat bu fekkee nag day jëfandikoo li ñuy wax gor ah, ca wax ja. na du ma ne waaw te te xam nga yaa ngi wax naan ay dañ ko politiser. loolu nit ñi tournée yi ci ginnaaw dañ ko daan wax parce que 2019 ak 2018 bi da ngay dégg ñu naan li euh, dañuy def campagne électorale déguisée maanaam ñu ngi waaj élection 2019 yi ñu génn mm-hmm. léegi xam nga loolu nga doon wax léegi nag. buñ bu ñu leeroon ne 2024 moom day nekkaat candidat suñu neexee ñu ne xëy na dañu doon campagne ñaane léegi man askan dañ ci dañ ci dañ ci xaw am part de responsabilité ndaxte bu fekkente ne nit dafa jóg di la seet si yow yaay baykat man dama gëm ne eh, mbooloo mu ñu mobilisé woon ay baykat nekkuñu ci. ah yaakaaruma ne baykat yi am nañ jot googu nag. am <laughs> gëm naa ne ay baykat nekkuñu ci léegi mu lay woon ne dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg ñoom eh, maanaam li ñu fowee askan wi. parce que mi ngi naan euh, ñi mu fekki woon maire ñoo mobiliser man jàpp naa ne bu ko neexoon moom njiit mi njiit li kenn du mobiliser. parce que nee fi bu kenn wax ci troisième mandat. képp ku ne muroo am troisième mandat la cay topp gis ngeen ko léegi kon est-ce que boo jëloon décision daan ne mobilisation bi du am est que dina am. ci jamono boo xam ne ñu ngi ci coronavirus Covid 19 bi foo toll ñu ngi koy wax ñoom ñu ñu ne ñu woon l'heure est grave daañu ne ak jamono joo xam ne coronavirus bi bi muy doog a am ci réew mi ñu ci bëri gëmuñu ko woon. léegi léegi est-ce que du nit ñi danañ jàpp ne kon ñii lañ foogoon moo am tey jii que ba ñu soog a tàmm ñu ne l'heure est kenn ku ne di moytu sa morom. doon ñu am ñoo xam ne loo jege-jege ak nit ci mbokk sa doom wala sa yaay sa doo leen nag ngeen jege lool ngir ragal jàngoro yi ñu dem ba benn instant ñoom ñu dajale des milliers de personnes ay auto topp leen ñuy nekk ci biir euh, dëkk bi di di di di déambulé ñu mu leen neexee loolu ndax xel mën na koo nangu est-ce que du ñu doon wax corona business ñoo nar am dëgg rek. waaw léegi suñu oto yooyu noonu ñu dugg sax def ci carburant boobu noonu. oto yu bari di maa ngi gis benn vidéo euh, ci benn télé journal am na bi leen des fois dañuy wote wane ay vidéo naan ku nekk sa xalaat quoi. Mm-hmm. waaye mi ngi naan xoolal oto yi ni mu bare plus de cent voitures am na ci ñoo xam ne da nga gis ay oto yoo xam ne kenn moo ciy nekk ñu topp ñu giir ñëpp ñu topp président Macky Sall loolu ban njëriñ la am. amul benn njëriñ. amul benn njëriñ te gis ngeen bi ñu demee bi mu demee Kër Massar nangu sahat jogi bu baax ci suuf ñu gis ko ci biir tool yi muy dugg ah, tool yi moom xëy na dañoo buñ fa duggee image rafet la ñu am te xalaatoo fa tax xalaatoo fa tooy di nga takk sax mais doo tooy tamit du garaaw ci yow parce que li nga dugg nii li nga nekk nii di nga xam dañuy jàpp ne sa da ngay jàpp ne sa liggéey la bu rafet la moom ngay wane mais la nga xam ne moo nekk kër masaar na ñuy dem ba démb rek booy saan image sa yaram day daw mhm. ñaar image yooyu rek àtt na lépp nga dem ci ndox mi nangoo dugg bii nga ñëw dugg ci tool yi mhm. da nga tool yi rek image sa yaram day daw ay nit ñoo waaw loolu koo gis ak tey tey nit dëgg dëgg dëgg xam nañu dund metti na nga baleen fi ñoom ñu dund jafe-jafe yooyu nga egg ca àll ba ne damay def tournée économique wala xam ne yow dëgg-dëgg baykat yi nga xam ñoo nekk euh, baykat yi gën a suufe gisoo leen ñu gën a seeni tool gën a baax ña am ay moyens am ay tracteur am engrais am jiw bu baax ñoom nga waxal léegi mooy wane ne dëgg-dëgg volonté bi daal des na des na mu nekkoon actualité ñu doon waxtaane li nga xamante ni bii moo di tournée économique bi njiitam réew mi doon amal foofee ca Sine Saloum moo nekkoon actualité bi ñu doon waxtaanee tey ci première partie bi laataa ñuy dem ci deuxième partie bi dañ leen di fàttali rek ngeen wéy di ñu topp ci YouTube bi Facebook Twitter ak Instagram ci suñu ay programme yéen a ci seen kafe siiwal tey ci alxames ji nag gis ngeen ko plateau bi wax dëgg yàlla am ñu fi nekk ñu ngi développé ci euh, débat bi lu bëree bëree bëri ñaareelu pàcc bi ci la ñuy ñëw léegi lu jiitu loolu dañuy dem jëli suñ kafe ñëwaat.